di dalal ganu suba si muy Modibo Diop expert en énergie président de la commission finance et fiscalité bu mouvement des entreprises du Sénégal Modibo Diop ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi lay wax euh, di leen ziare di leen nuyu bu baax a baax. Uh-huh. ñuy wax tey ci loi bu bees euh, ci partenariat public privé bi nga xam ne euh, wote nañ ko bu yàggul assemblée nationale déjà lan moo ci seen xalaat. waaw kooku benn benn boo xam mooy lëkkaloo euh, gouvernement bi ak société yi nga xam ne ñooy liggéey ci Sénégal yi dañuy jóge bitim réew yi ne ci réew mi mm-hmm. euh, ñun mouvement des entreprises civiles Sénégal bi président Mbagnick Diop jiite dañ ci liggéey lu bari ak gouvernement Sénégal ngir joxe ci suñu xam mu war a doxee ba nga xam ne mm-hmm. euh, entreprise yi ne Sénégal dañuy gis seen bopp ci li nga xam ne mooy alalu Sénégal mooy koomu Sénégal donc am nañ ci ay résultats yoo xam ne ñun suñu xalaat màcc na ci ba ñu proposer ko gouvernement bi ba gouvernement bi doxal ko évidemment ànd nañu ak yeneen yeneen yeneen euh, groupement patronal waaye daal liggéey MEDES moom fees na ci bu baax a baax a baax ba tey daal dañu sant yàlla bi nga xam ne. Mm-hmm. après ñetti at yëpp ñu ngi waxtaan bu gouvernement bi dugal na ci suñu xalaat lu bari ci liggéey bi ba tënk nañ ko ci benn loi boo xam ne jaar na assemblée barke dem. waaw li ci bees mooy bu njëkk euh, li daan lëkkalee gouvernement bi mu ci wàllu liggéey ak secteur privé bi ne ci réew mi ak bitim réew. Mhm. dafa am loi bu ñu daan wax loi CET moo amoon 2004 moom moo fi doon dox après 2014 ñu changé ko mu nekkaat beneen loi mais loolu dafa amoon luñ ci gisoon ci ay ay jeexital yoo xam ne baaxul woon ci réew mi trop ndax da ngay dégg saa su nañu naan euh, réew mi liggéey yi fi am solo yëpp kenn du ko jox waa réew mi dañ koy jox ñi ci bitim bitim réew. Mhm. donc ci waxtaan yooyu moo indi euh, ñu changé yu bari parce que texte yi dafa am côté yoo xam ne ci wàllu aspect juridique bi aspect loi yi. Mhm. dafa bëri woon yu ci tasaaro léegi dañ ko dajale def ko benn unification ñu ñaan unification cadre institutionnel bi et puis dem nañu aussi ci biir changement yi dugal nañ ci ay notion comme notion ay ay accord programme ay notion yu am solo yoo xam ne mooy tax di nga mën a ay programme yoo xam ne dañuy sélectionné entreprise ñoo bokk ci mhm. jënjën dugal nañ ci aussi am na benn conseil des infrastructures bi nga xam amoon na ci loi CET amaatoon ci mille 2014 bi euh, dindi nañ ko. Mhm. ba pare jël li mu amoon ci ay cër ci atte ak ci saytu ñu jox ko DCMP ak ARMT xam nga DCMP ARMT dañu am solo ndax ñoom am nañu experts yu bari te yàgg nañu liggéey ci wàllu marché public donc seen expertise dafa mën a feeñ. Mhm. bon dindi nañu aussi comité national d'appui au partenariat bi nga xam ne amoon na benn unité amoon na boo xam ne. da daan jiisal liggéey bi am na neneen nuñ ko tëralee mais li gën a am solo ci li ñu def mooy ñu fexe ba nga xam ne euh, société yi dëkk Sénégal nga xam ne ay sénégalais comme yow ak man ñoo ko moom ak keneen ñoom ñu gis seen bopp ci liggéey yooyu nga xam ne mooy liggéeyu tali yi mooy liggéeyu courant yi mooy liggéeyu ndox yi mooy liggéey nga xam mu am biir Sénégal. Mm-hmm. te loolu am na ay décision yu am solo yoo xam ne feeñ na ci bu njëkk bi. mooy boo gañeetee appel ku jóge bitim réew ju gañe appel d'offre bu mag comme ngay tabax Ila Touba autour di quatre cent milliards mm-hmm. dañ la naan société bi koy liggéey nga xam ne société de projet Sénégal lañ koy monté téeméer bu nekk ñaar fukk yi ba fukk ak ñeent yi eh, Sénégal yi dañu ciy jël seen alal dugal ko ci xam nga loolu am na solo mm-hmm. Mm-hmm. ndax bu njëkk ñoom dañ daan ñëw rek gañe benn marché jóge Chine jóge États-Unis ñëw toog fii liggéey ko def lu leen neex bu ñibbi jotee ñu ñibbi yóbbaale seen alal léegi dootul demee ci noonu léegi dañuy ñëw buñ fi toogee jël marché dañuy ñëw ànd ak nit ñu ñuul ñi Sénégalais yi fii ñu bokk ci capital bi bokk liggéey kooku tënk bu am solo la. mu mel ni privé national dina ci gën a am ay avantage justement ñu waxtaanee avantages yooyu euh, ci PPP euh, yi yu privé euh, national justement Ah, avantage boobu mooy mooy bu njëkk bu njëkk bi mooy bu ñu ñëwetee léegi toog fi Sénégal dañuy jël capital bi nga xam ne moom la ñu mooy société projet yi ñu bokk ko ak ñoom loi bi tënk ko eh, jox ñu entre secteur privé national entre ba vingt cinq pour cent ci capital boobu hmm. kooku avantage bu am solo deuxième bi mooy bu ñu fi ñëwetee tamit ñoom société yu mag yooyu am liggéey ci réew mi hmm. téeméer bu nekk lu mu néew neew fanweer yi dinañ ko jël jox ko et ko jox ko société sénégalaise ñu liggéey ko ndax bu njëkk dañ daan ñëw am liggéey bu mag bu am Sénégal waaye daanaka lépp li nga xam ne mooy dëkku ci liggéey bi ñoom seen ay nit la ñuy jëlwaat bitim réew ñu liggéey ko kon Sénégal duñ ci am dara léegi nag ñaar yooyu mooy avantage yi am solo def nañ ko bon buñ ko appliqué ak décret yi ñëw yaakaar naa sénégalais dañu bàyyi naan euh, liy dox ci réew mi gisuñu ci suñu bopp ni ko nit ñi di waxee lu bari. Mhm. Euh, bu ñu xoolee document ministère de l'économie gannaaw wat wi ñu ñuy xamal ne loi bu bees bi dina jàppale euh, projet PPP yi ci wàllum banque yi est-ce que mën nañoo gën a xam ci ban anam lay doon. waa lool loolu tamit am na xam nga xam nga liggéeykat Sénégal yi comme liggéeykat Afrique yëpp ah réew mu nekk tamit liggéey fa fa dooleem toll rek la ay liggéeykat mu toll li ñu naan comme li di wax <laughs> kenn du xeeb sa njëlu bàyyi bon eh, société privée nationale bi jàmbaar la ñu gis nga société yi fi nekk yu mag yi fi nekk di liggéey ci biir réew mi gis nga yu ndaw ndawaan ak yu ndawaat yi. Mm-hmm. ba ci tuuti tuuti gis nga ay jàmbaar la ñu mais souvent problème mu alal bu ñu liggéey mooy poser seen problème. Mm-hmm. bu ko defee loi bi léegi def na ay dispositions yoo xam ne dinañ mën képp koo xam ne songati nga marché yu mag yooyu gouvernement bi dina la mën a accompagner te am na beneen loi boo xam ne sax moom mu ne nekku ci biir directement mi ngi nekk mais ci stratégie nationale du développement secteur privé. Mhm. mooy tax boo jëlee marché yooyu ñoom état bi dinañ la accompagner ci financement moo tax ñu naan mu nekk ay projet bancable. Mhm. ndax euh, bile projet amul ay limites. waaw am na am na ay limite nag parce que peut-être trois ans yëpp bon ñun euh, euh, ci ci MEDES ñu ngi doon waxtaan ak ñoom bon président Mbagnick ak ñun ñëpp ñu ngi ci andoon di ci waxtaan ak gouvernement bi ni ñu war a tënkee loi bi ba nga xam ne Sénégal yi dañ ciy gis seen bopp ci liggéey xew ci réew mi mais dafa am lu ñu leen laajoon loolu nag defuñu ko. Hmm. xam naa def nañu lu bari mais loolu des na parce que dafa am ñetti secteur yoo xam ne secteur alal yu am solo la muy miin mooy lépp luy jóge ci suuf ba ci pétrole sax dañ ko boole ci secteur minier parce hmm. que ci suuf lay jóge ba ci or ba ci diamant muy télécommunication muy li ñuy saytu comme ni ñuy waxtaane ni muy secteur bu am solo gis ngeen ni muy occupé PIB presque dix pour cent PIB Sénégal la mm-hmm. muy énergie ak gis nga courant ni mu amee doole ak wàllam yëpp ñetti secteurs yooyu nag bokkuñu ci loi bi te ñun dañu doon wax au niveau du MENES ak du secteur privé national globalement ñetti secteurs yooyu nañ ko boole ci loi PP bi bu ko defee li tënk liggéey yëpp tënk leen waaye nag bokkuñ ci bon ñoom nag loolu biñ ko souligner ci waxtaan yi def fan yi nee nañu loolu c'est pas exclu ndax boo xoolee texte bi sax am na ci benn pàcc boo xam ne ñu ngi naan bés bu accord amee secteur régu yooyu ay secteur régulier lañ ko tuddee secteur régulier yooyu mën na am waxuñu ne am de mën na am nañ ko dugal ci loi loolu daal moo ci li ci xam ne moo ci xaw a moo ci li ci neex bari na saf suukar waaye loolu daal moo ci xaw a saf xorom tuuti ci ñun. mu mel ni loi bi dafa am benn euh, niveau bi mu jëlee actionnariat privé euh, opérateur économique yi yóbbu ko feneen. waa jël na ko nag wax dëgg yàlla jël na ko parce que bu njëkk euh, bu njëkk bu njëkk société projet yi nga xam ne mooy ñi liggéey yu mag yooyu amul amul woon benn obligation ah, nit ki dafay jógee fu ko neex ñëw dugg Sénégal dem uti notaire am monter société am gagner marché liggéeyal ku ko neex jël alalam dello ko Sénégal delloo ko biir dëkkam bu dee Chine mu delloo bu dee France mu delloo loolu nag jeex na tey. Mm-hmm. léegi boo ñëwee fii am sa projet eh, société de projet bi da koy bokk ak Sénégalais yi te loolu moo jaadu ndax amul benn réew ci àdduna boo xam ne dinañ ubbee seen économie noonu ba nga xam ne ku la neex def tey jii boo demoon état boo demoon Chine tey. boo fa bëggoon dawal oto sax problème lay doon waxatuma laa nga fay monter société di liggéey am na ay sàrt ko teg États-Unis même diggante boo xoolee diggante états seen xeex la bu fekkee da jël sa économie réew ubbi ko ku ñëw def lu ko neex dafa mel ni nga ubbi sa kër rek ku ñëw dugg sago ku njëgg naan dem loolu musiba la di ñu nag loolu la ñu xeex ba ñu yegg si ci loi bi tey. Mhm. yegg si fii euh, sànq nga tudd cadre juridique bi ñu bëggoon a xam lan moo soppeeku euh, ci PPP bu 2014 bi ñu euh, soppi jamono ji waa cadre juridique bi dafa am dafa dañu dañu léegi lu bari DSMP ay ARMP lay jóge te bu njëkk dafa am na ay unité yu tasoon ci état bi. ku ci nekk di yëngal di defar sa biiru bopp xam nga mm-hmm. tasaaroo boobu ñu tasaaroon ku nekk yore benn doole di ci décider lool dafay tardeel liggéey bi loolu nag léegi jeex na lu ci bari dañ ko unifier texte yi ba lu bari DCMP RMP moo koy def ba nga xam ne moo tax ñu éliminer conseil national des infrastructures moo tax aussi ñu éliminer ay ay unité d' appui au partenariat public privé Mm-hmm. loolu daal dañu fexe ba nga xam ne centre de décision yi ñi nga xam ne ñoo dogal ñu dajale leen fenn parce que bu fekkee ku nekk da nekk benn ruq di dogal mais loolu du dox. Mm-hmm. te mm-hmm. loolu ñu di euh, MEDES contribuer na bu baax a baax a baax ci biir loolu pour expliquer loolu euh, du du yoon wi tegu ci yoon mais vraiment ñu déglu nañ ñu daal wax dëgg yàlla parce que tamit yombul. ndaxte doo jël sa réew rek ne ñi fi waa réew mi rek ñooy liggéey. ndax ñeneen ñu ngi bitim bitim réew di ñëw di liggéey ci réew mi da ngay boole ñëpp sàmm da ngay da bàyyi xel ñeneen bàyyi xel ni comprendre nañu gouvernement bi difficulté ñu am mais di ci am solo daal liggéey nañ ko ci loi bi daal. sànq wax nga ko ci nasaraan ba ñuy wax ci bancabilité bi euh, mu mel ni tey ji euh, li jëm ci nationaux yi seen doole euh, bëriwul noonu bu baax. waa xam nga xam nga li ma la wax rek li ma la ne nit du xeeb jëlu ba ku nekk rek réew ma nga nekk fa sa doole réew toll rek la sa doole toll mais nag bu ñu xeeb suñu bopp. Hmm. tey jii suñu réew am na économie boo xam ne mi ngi dox avant Covid bi mi ngi doon dox bu baax am nañu croissance bu baax na ñu fexe dooleel suñu entreprise yi ba nga xam ne eh, ñoom dinañu gis seen bopp ci économie réew mi ndax ñoom ñooy créer alal ñooy créer emploi hmm. alal ak emploi fu mu am réew am koom day dox boo ko deful nit ñi bitim réew la ñuy jël dañuy jógee ñëw jël si alal ba pare doo am koo liggéeyal xale yi du ñu liggéey mag ñi dañu liggéey. Hmm. merci. Uh-huh. Euh, donc gars yi góorgóorlu ñu côté boobu bu baax a baax parce que loolu boo ko defee sa réew du dox. d'accord sa réew du dox di nga am réew mu am croissance bu tëgër mais <laughs> liggéey yi fa am solo yëpp nit ñi nit ci bitim réew a koy jël bu ko yàggee bitim réew ak koy jël réew ma du am alal benn ndax ña fa nekk du ñu dese dara te du am ay liggéeykat. te loolu baaxul cim réew. dëgg la Modibo Diop di expert en énergie jiite commission finance ak fiscalité bu mouvement des entreprises du Sénégal ñu lay jaajëfal bu baax a baax. merci